À 24 heures de l'ouverture de la Coupe du Monde Russie 2018, ont pu rencontrer les la FIFA pour les règles du avant le démarrage de cette compétition. Demain matin, vers 8 heures GMT, ils vont faire leur première séance d'entraînement. Kaluga, ce nom ne vous dit absolument rien, mais c'est la ville qui va accueillir l'équipe nationale du le début de cette compétition. Une ville de Russie qui est au centre et la capitale de l'oblast de Kaluga. Sa population s'est élevée à 331 551 habitants en 2013, avec une superficie pour le froid est entre 62 degrés et 64 degrés et une chaleur qui de 16 à 17 degrés. La distance et de 188 kilomètres soit 2 heures 54 minutes de route Kaluga en Russie KSTV. benn ay bés dong moo des ci coupe du monde bay am ci Russie tàmbali waa gayndey Sénégal nag ñoom tey ci àllarba gi dañoo noppaleeku profité waala ci délégation bi def ab daje ak ñi nga xam ne ñoo ngànk fubalu àdduna bi muy waa FIFA ndax ñu mën leen tegtal li nga xam ne moom la compétition bi di nangu ak li muy tere waaye suba ci suba ay 8 heures fii ci Dakar équipe nationale dinañ def seen tàggatu bu njëkk bu muy bi ñuy def. def pour waajal seen coupe du monde Russie 2018 Kaluga nag boo ko déggee ñu bëri du leen jox dara waaye Kaluga mooy dëkk bi nga xamante ne moom mooy dara suñu gaynde Sénégal yi mu nekk dëkk boo xamante ne ci Russie la bokk waaye mi ngi nekk ci centre benn capitale ba ñuy wax Oblast bu Kaluga population bi nag ñoom dañoo élevé wu ci 331 551 habitants ci atum 2013 ak superficie wu 29 800 kilomètres carrés seen climat nag moom nekk na climat ba nga xamante ne bi ci weeru juin ak juillet dana sedd lool ba yegg ci soixante-deux degré wala soixante-quatre degré bu dee jamonoy seddaay nag moom day varié wu ci seize ak dix-sept degré distance bi nga xamante ne nag moom moo séparé capitalu Russie ak Kaluga mi ngi toll ci cent quatre-vingt-huit mu ngi mel ni ngay daw lu mat ñaari waxtu ak juróom fukki minutes ak ñeent fii ci Kaluga ci Russie KSTV